السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكجيلي بك طالبي بك يومي ما يلين بجنب بلان سمت بلان قرم بقني يوقتان توتي لك jamono ji te fan yëpp ñu koy coow muy weer bi yëpp muy tuuma ju ñu yëkkati teg ko ci deru gor moo ko waral koo xam nag yàlla laa dénk doole jox la pouvoir bépp di la sàmmloo nga war a sàmm ba war a jëfal war a xontu jur gi ñu bañ a xiif bañ a mar waaye nga yeewu leen joxoolu leen leen lekk leen luñ naan teg leen ci condition yu ko def ku ne day yaakaar yi dina la jëkk te yàlla teral la ba noppi nga bëgg a toroxal doomu aadama yi ku yàpp ne ku jàpp ne da nga mën ngaa daan nit adduna daan ko àllaaxira yaa ngi nax sa bopp su réew mi nag man am naa ci jàqare am naa ci tiitaange am naa ci ak jaaxle ndax réew moo xam ne ne quatre-vingt-quinze pour cent yi ay jullit lañu waaye am kenn ku leen jiite ne ca bopp ba mënoo wax jullit la mënoo wax lan la te njiit lañ koy tànn waaye njiit loo xam ne dafa soxot bu la ko yàlla nattoo nag da nga ko muñ te day mel ne ñun Sénégal yàlla doon na toll loolu ndax soxat weesuut ne cim réew jiite ko ñuy wax ay opérateur économique wala ñu leen di wax ay homme d'affaires teen bañ daan naane te joo ko nga war leen ko defal moo di forage. nga placé ay tuyau fu ne ndox ma jote fa ñu naan buñ bëggee togg togg buñ bëggee sangu sangu defoo ko waaye nga bëgg a sakk teen boobee de mën naa ñàkk te loolu weesuwut mooy tëj seeni compte ba mënatuñu am dara nga nangu lépp te ku ci amoon te jënd ko nga nangu ko wala nga xaaj ko doo ko dugal foo xam ne njëriñu la yóbbu la sa soxlay bopp nga koy dugal wala nga jox ko say bokk loolu iñaan féetewu ko kaw moo tax opérateur économique yi sonn nañ homme yi sonn nañ iñaan weesuwul itam Sénégal yi nga xam ne ñoo liggéey ba am seen paas dem bitim réew di fa liggéey di fa yëngu te loo am doo ko mën a dugal ci réew mi walla nga nekk ci réew mi war am xaalis bu la jógee bitim réew boo xam ni pour pour lewal doomu ma lay doon nga bu koo jàllale si te doo ko mën a doo ko mën a dugal doo ko doo ci mën a jot am million sax boo ko dugalee day laaj foo ko dugalee foo ko jëlee foo ko nangam nangam bu dee 4 millions wala 5 millions waxi noppi kon loolu. ñaan féete woo ko kaw. ñàkk ñëw te féetewu kaw bañ diine gi nag moom kenn na tablewu ko ndax ñaari at yépp ku féppiwul sa sa jumaa daa tëj daara alxaani nga boole ci di jëng sëñ daara yi jàngale di di leen tëj ci kaso bi ay juróomi at ay ñetti at ay fukki at di leen tere yalwaante dimbale woo leen féete woo leen fenn loolu kiñaan féete woo kaw njiit nag su fekkee dafa dëng jeng ay àttekatam gën koo dëng gën koo jeng moom réew dana yéex a jag te kat képp koo xam da ngay àtte te àttewoo ci alxuraan yéefar la am naa feq la te kat ëllëg suñ borom dana àtte ta àtte suñ borom nag moo gën a jub moo gën a maanu ku àtte fii ak ndëng àtte fii ak ay caaxaan na nga xam ne suñ borom dana la àtte ëllëg te boobaa da nga am gàcc da nga am kersa da nga rus kon réew mi ñu ngi ay ñu ngi ñu ay coono te kenn tegu leen ko lool njiitu réew mi fi nekk ba muy bëgg réew mi day dawu jóg Touba dafa ne daan rattrapé toog ci suuf di sujjóot ragal ko fa la ci Cheikh fi di jooy daanaka alañ bara dox diggam ak gàcce googee ba tey yeesu ko waaye tey jii de la mu ragaloon mi ngi koy def gor yi di leen toroxal di leen duma te kilifa ko ko ñaan mu làkk te ba de Tuubaa gi ci kilifa yi ñu dox diggam ak gàcce waaye nag day mel ni moom kilifa ko ko ñaan mu gàccal la ba ñëpp kenn sawratu koo ñor kon jiit li mel noonu ku am yàlla natt na la waaye nag yàlla tëj bunt tëj fenêtre wàcc bi rido déedéet leer na seen complété yi ndax ñoo yor lépp bëggoon a toroxal sonk waaye nag sun borom su suturaal ab jaam lott na ci toroxal la ndax tuuma ji ñu teg sonko di dara wéru ci te lépp leer na bëgg ko gàccal tam moo tax pexe yi doon def tey jii yëpp ñu def ko waaye yàlla leer na lépp ku am sañ-sañ nag am doole jàpp ne yaay buur di du bumi ba loolu neex nga def bisimilah yàlla gëmul nelawul te moo fi sax gàcce nag baadool lu ko jub mukk mukk mukk mukk tàggu ca te kuy bëgg a dee ci xare lu mu jiit xeb ko dama yaakaar nag kuy bëgg a jeexal daa war rafetal waaye waroo ñaawal te kii fi nekk day rafetul dara rafetul dara comme réew mi nag dañ cee nekk di ay julit di ay sénégalais kon luy defar luñ ci xam war nañ ko wax lu yàq luñ ci xam war nañ ko wax ndax noo ko waxoon ci xuddaamal xadim ni dana wax ashadu an la ilaha illa allah di ay julit kon lu ñuy xam luy defar ci dine war nañ ko wax waaye luñ ci xam lu ko yàqoon na ko def wal aslamtu nafsi itam doon ay taalibe kon do yoon wi lu ci yàq buñ ko xamee war nañ ko wax luy defar suñ ko xamee war nañ ko wax dëkk ci réew nag am dante Sénégal di citoyen kon nag réew mi lu ci war lu ci defar buñ ko xamee war nañ ko wax lu ci yàq buñ ko xamee war nañ ko wax loo tax ñu yëkkati suñu kàddu ci suñu turu bopp di naqarlu xew tey di ko ñaa di ko ñaawlu di ko metti ànd ak nag ñi bokkal pas-pas ñëpp ñi ñu réew mi ñi ñu bokkal dëkk ci réew réew mi itam gàcce gu ndax jullit jullit ay bokkam boo gisee ñu yëkk suñu kàddu nag lii wax rek moo tax soo ko nag sunu dëkkandoo noo bokk dëkk ci kër góor gi ba noppi ñu xam ko ci ak ak gëm dara di jullit gëm diine di ko pratiquer bu wéra wéra wér comme ñoo bokk nag ñoom jàngale ñu jàng di ay tubaab bokk nekk ci réew mi mu gën a leen lim gëm diine te gëmuñu ko di ko pratiquer moo tax suñ ko bëggee daane dañ koy tuumaal ci jigéen wala leen ngir gàccal ko waaye fiir googu mu yàlla raxal na ko li ñu ko bëgg a def nag daan doole daan jaay ko doole dongu la te doole nag moom kenn dongu kam mu yàlla doole ñuy sax yàlla ay joxe nguur moo koy xañ kon mbëkki ak ñi nga àndal xam ne da ngeen da ngeen fi jóg jóge benn nguur yàlla rek sax benn nga toog fi li nga war a toog mu jeex nga jóge fi wa illaa nga def gaaf ñu jëlee la fi te lii da gaaf la boo xam ne soo ci dellusoo gannaaw mën naa dem ba réew mi bañ la gedd la ba max la puus la gëllëf ci farforce te loolu nag kenn yéenewu la ko soo sañoon da nga fi nekkee na fi Abdoulaye Wade nekke woon am yërmaande nangu kilifteef nangu ndigal loolu taal bi waaye yow bis bañ la falee te dee bëggoo pare nga waxoon ne Séné nga ne nga waxoon ne sa kilifa yi di ne ay citoyen simple ordinaire lañ loolu nag moo nekk sa xol ba tey jii yaa ngi leen di jéem a gàccal yaa ngi leen di jéem a toroxal waaye ak ay jafe ak ay jafe ndax ñoom kat liñ am mayoo leen ko te mënoo leen ko xaj diine leen ko may. suñ borom a leen ko jox jaarale ko ci diine kon diine leen teral islaama leen teral. yéen nag àdduna moo la teral te àdduna comme teral ku ne bis la ñëw mu toroxal la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah